Prod TV mbokk yi Barthélémy Dias su moytuwul dana perte maire Ndakaaru ndax justice mën naa am dëgg ci kawam rëg-rëg ndax day daan Bombardier yi waaye kii di Boy ñaan ndax mën naa daan Modou Lo sëriñ bi ne ma kaay ma am lu ma la leeral ci as tuut ci yii ma la limal. année bi ñuy waaj a dugg di 2024 mbokk yi nekk année boo xamante ni chaque année bu daan ñëw sëriñ bi dana génn joxe ay sarax wax li nga xamante ni ku ko def at mi mën naa neex ci yow. révélation yi yëpp danañ ko leeral tey danañ waxtaanee li xew ci dëkk bi mais laata loolu nañ bàyyi sëñ Modou borom baax mu nuyoog askan wi ñu soog waxtaanee li xew ci dëkk bi dégg naa nag ko dàq seet yàlla bind ko waaw dégg ñu ngi lay fay am nuyoo waaye di jiital ci nuyoo bi rek Cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir di ko ñaanal fànn gu dëgg wér ba naa lim am ci liggéeyal ko maamam suñ borom sottil ko noonu lañ koy ñaanalee tamit yeneen xalifa yi suñ borom may leen wér ak kàttan ba naa lim am ci liggéeyal ko seen maam suñ borom sottil ko di la fay am nuyoo di la wax ne la sama wax nag bariwul waaye saa bu ma génnee rek lépp loo xam ne wax naa ko rek moom dara mënu koo dindi. waaw kon nag xam naa ne tey di ñaan waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy seq. lépp luñ ci wax rek suñ borom euh, jubal ko waaye lépp luñ ci wax te muy ay dëngte suñ borom jubbanti si waa keñ bisimilah. Euh, sëriñ bi tey xam-xam bi la yàlla defal ku ne xam na ne kenn dootu ko naatable mais bokk nga ci sëriñ si dëkk Touba ci ñi ma xam ci ñi nga xamante ni bu ñu xasee ba ne la jox ma sa tur di la seetal yow li sa dund lépp lañ lay wax avant après ak fi nga toll tey te yaakaar naa lii tamit mooy njariñu dayob seet wax nit ku lu leer 2024 ñu ciy waaju dugg yàlla ñu ko fekkee tal ko. sénégal yi kenn ku nekk bëgg naa xam tamit sarax bi nga xamante ni boo ko defee at mi nekk at mi ko gën a jig ci at yi nga xamante ni dugg na ci. waaw dégg li ma ci laaj dinaa la ci tontu lu leer nañ ba nga xam ne kiy toog di seetaan dina dégg lu musta dégg tamit dina xam njariñ bu am solo boo xam ne musu koo xam. Mm-hmm. Euh, bi may njëkkee nag euh, mooy wàllum seet gi ma njëkk a laaj. Mm-hmm. seet nag euh, mooy buntu ñaan. Mm-hmm. ñu bëri nag dañ naan nit ki mën na mën a ñaan te du mën a seet d'accord naa loolu. waaye nag damay wax ne euh, dem ci médecin mu consulter la bind la garab moo gën fuuf nga dem ci médecin mu bind mu jox la garab te consulter wu la seet nag euh, dafay dimbale sëriñ bi waaye dafay dimbale yow miy ñaanlu ndax sëriñ bi ni koy dimbalee mooy di nga mën a seet xam nit ki lan mooy problème am lan mooy sarax yi man ko ñaanal mu gis résultat ki nga xam ne mooy ñëw ci sëriñ bi tamit euh, di ñaanlu mm-hmm. sëriñ bi seetal la wax la lu leer naññ nga yëkkat sa xaalis jox ko moo gën nga ñëw mu seetal la wax la ay léeboki lëppeen nga yëkkat sa xaalis jik ko jox kon seet dafa nekk loo xam ne obligatoirement la ci nit ki nga xam ne mooy ñëw ci sëriñ bi di ñaanal waaye sëriñ bi tamit forcément dafa war a seetal nit ki bala mu koo ñaanal seet nag damay wax ne euh, bokk naa ci ñi nga xam ne yàlla da leen cee may bañ xam ne dañ leen cee may ndax man seet fu ma nit ki mën a woowee mën naa la wax sa soxla te man amul benn nit bu may seetloo ma lay laaj lan moo la tax a jóg man dang may woo rek jox ma sa tur ak sa sant sa turu waajur wu jigéen ak sant bi ma man laa seetal wax la loo xam ne mbindeef mënu ko dindi du ma wax nit nag loo xam ne da nga koy dindi déedéet mm-hmm. li koy waral mooy dama lay seetal du ma du ma toog rek jekk-jekk naan la lii ak lii te seetuma ko déedéet waaye nag képp ku may ñaan loo tamit bala ma laa ñaanal faaw ma seet ko kon nga xam ne seet moom mel nañ ci noo xam ne yaakaar naa ne am na ñoo xam buñ ma gisee automatiquement dañ naan ah ki yéen da ngeen koo yeex xam ah, man Touba laa juddoo fa laa yaroo fa laa jànge fa lépp bool balaa may jóge Touba di ñëw Dakar gi rek àdduna bi yëpp xam nañ ma kon wàllum seet moom nga xam ne noonu lañ ciy doxee beneen bi tamit mooy bu dee bi loolu nag dafa nekk lu am solo loo xam ne. borom kër bu ne. man nga ko jéem a fexe defal ko sa njaboot xama lan moo ko waral. mooy weer at buy jeex. moo xam ci atum olof la. wala ci atum tubaab. Mhm. dafay am jàngoro yoo xam ne dafay ñëw. am xeetu tiis yoo xam ne dafay ñëw àndaaleeg moom. Mhm. léegi nag bu defee li gën mooy nga génn sarax yoo xam ne dina la protéger protéger sa njaboot kon sarax yooyu tamit ku ko bëgg a dégg incha allahu taala bu ñu jógee ba ci waxtaan wi des na ko mm-hmm. euh, bëgg xam rawxaanam xam parce que dégg naa nit ki bu xamee tabixaam am na loo xamante ni bu koy def rek ak dundam mën na ci sax bañ a feebar euh, tabixaam doomu aadama ginnaaw seet ñu ngi la ciy bàkk. Mm-hmm. waaw tabixaam doomu aadama mooy dañ koy xoolee ci anam yu baree baree bari mm-hmm. ndax nit ki dafa am bis. am waxtu am heure. am weer. léegi nag yooyu boo ko xasee xam. Mhm. dafay aajowu nit ki soo koy liggéeyal da ngay tàmm bis ba. Mhm. tàmm at ma tàmm weer wa tàmm heure ba. Mhm. su ko defee mën nga ko liggéeyal loo xam ne. kenn mun taw wax ba mu échec. moo tax dëgg dëgg dëgg dëgg boo gisee nit di sonn ci ñaan parce que dafa xamul yoon wa mais soo xamee yoon wa doo ci sonn ndax nit ki boo xasee ba xam bis ba mu judd lu ne mën nga ko cee def léegi tabixa doomu aadama nag dafa am ñoo xam ne dañ leen a bind ci ndox am ñoo xam ne dañ bind ci suuf am ñoo xam ne dañ bind ci sawara am ñoo xam ne dañ leen a bind ci ngelaw mooy waral nit ki bu dee takk jabar bu ñëwee xool kii mu nekk sawara ñu xool kii mu nekk ndox ñu ne la yéen ñaar de àndoo leen ndax sawara ak ndox da da koy fay mm-hmm. waaye nag ci beneen anam man damay wax ne sawara ak ndox ànd nañ ndax sawara mën na tàngal ndox mm-hmm. comme ni ki nit ki ni mu tàngalee attaaye wala kafe da ngay soxla mu tàng mm-hmm. su boobaa kon man boo ñëwee ci man man nga nekk sawara moom mu nekk ndox ba pare ma boole leen waaye tamit nit ki dina nekk euh, sawara keneen ki nekk suuf am na ñoo xam dañ naan ànduñ ba tey tamit dama naan mën nañoo ànd waaye nga xam ne tabixa boo ko xasee xam ci doomu aadama bi am na sara xam yoo xam ne boo ko dee digal moo mu koy def mën na bañ a dem ci sëriñ mu koy ñaanal waaye sax man na bañ a feebar yenn feebar yi lu mel ne ay ngelaw di la dugg wala nitu guddi yi di la jàpp wala sax ngay umu yooyu yëpp mën na nga cee mucc ndax sarax boobu moo koy protéger ba yooyu du ñëw waaye moo lay ubbi tamit aussi kon xam tabixa bi dafay doon loo xam ne faratale ci nit ki nga xam ne mooy ñaanlu euh, ñu gis ne bokk nga ci sëriñ si nga xamante ni chaque essant client ba ñuy ñaanal takkal leen médaille kurus gi nga takk kurusu xaalis la ko boole ak ka ko yàlla booleel ba ñu booloo juboo mu gis ci résultat moo ko liggéey mu nekk xaalis kon lii yaakaar naa ci valeur xaalis bu baree bëree bëri la euh, mu defal la ko te kurus gi nga ne ma ko amee ci victoire nopp sëñ bi yëkkatil kurus gi euh, nga leeral askan wi li nga xamante ni moom mooy nopp. waaw kurus gi moom euh, cadeau la boo xam ne. xam naa ne incha allah taala dama koy jëfandikoo ba borom ki ma ki nga xam ne moom ko jox xolam sedd. Mm-hmm. ndax dafa doon cadeau boo xam ne dafa rëy ci man lool. Mm-hmm. ndax jigéen ñi man lu ne lañ may jox lu ne waaye kii nag dafa dafa dafa jël coupe bi li tax mu jël coupe bi mooy kurus gi mu indi jox ma ko te ku nekk xam na ne man kurus dama koy jëfandikoo bu baax a baax léegi nag kurus gi da ko commandé turki la ko commandé mu nekk xaalis bu bari mu ñëw ko jébbal ma ko ndax lan ci wàllum noob lañ seqoon ma nag moom noob nag damay wax ne ku nekk mën ngaa génn naan vingt-quatre heures rek sur le champ lu ne nga wax ko mais nopp moom yemuma ceeg ku yàlla bind. loolu moom sama baat ca kaw. te doon na loo xam ne nit ñëpp xam nañ ma ci. du ma ci namu nag. waaye nag dama cee dund loo xam ne bu ma toogee di nopp. Mhm. war na ma nopp li tax mooy. damaa jàng. dem ci samay maam ñu xamal ma lu baree bari. Mhm. ma jóge fa génn dem ci àll bi. Mhm. bi ma génnee dem ci àll bi dajeeg ay pël séeréer. façon nit bu ne xeet bu ne ma dajeek moom ku ci nekk la nga am ci xam-xam ma jël ko ci yow indi lépp dajale ñëw toog moo tax dama naan man nopp nu ma neex laa koy defee nit ki lii nga gis nii perkal la waaw perkal la boo xam ne bu bees tàq la uh-huh. perkal nag boo ko déggee yaakaar naa ñëpp xam nañ perkal lan lay jariñ ok uh-huh. lii nag bu ma ci fasee nit uh-huh. pour wax la ne la ñi naan sama jëkkër kenn mënu koo jàpp wala sama jabar kenn mënu koo jàpp dafa dëgër bopp wala dafa messik waaw lii perkaal bi boo ci jëlee ba fas ci nit ki. Mm-hmm. nga jël gura yëy ko. waaw takkal ko ci jox ko mu takk ko. Mm-hmm. kenn mënut a wax wax bi ba kim ci nopp mu topp ko kenn mënut a tee ba du ko topp. kenn ku ko def jigéen maanaam daf lay topp wala nga def ko góor daf lay topp. lii boo ko defoon koo takkut. Mm-hmm. foo leen tool da ngeen ni mooy moo tax toujours duma ko bëgg di defal ñi nga xam ne sëyuñ jëkk ak jabar rek laa koy defal ndax soo ko defalee nit ba mu takk ko ci ndiggam ki nga ko def day mel ne tànk gisu ko ba jaxasoog moom du am jàmm nag li koy waral mooy ñu koy liggéeyee ci percal mooy percal dañuy wax ne nit ki nga xam ne dafa dem ba mënalutul boppam dara lépp dañ ko koy defal uh-huh. ko defal ko yu mu war ko suñ borom moo waral lii nag boo ci takkee nit yow mi ko def uh-huh. day mel ne loo ko wax mu def ko loo bëgg mu nang ko maanaam tey sax lii li ci gën a garaaw man nga koo def nit ngir xaalis bëgg xaalis ci moom nga def ko ko boo ko takkee boo demee loo ko laaj dala koy jox waaye nag kenn mënu maa trompé kenn mënut a ñëw ba ma defal la ko uh-huh. te xaw ma euh, dëgg-dëgg lan moo nekk ci biir bu dee am ca ay caaxaan la dinaa ko xam bu dee lu ko jaar la dinaa ko xam waaw. Euh, sëñ euh, dama gis boo joxee nit jaaro ci saa nit ki daf ñuy vocal wala ñu gis ko mu post ci Facebook bi di wane xaalis wala di sant ne moom gis na ay yokkute ci boppam. ma ne la dama gis sëriñ soo xam ñi ngi joxe jaaro mais dañuy jox nit jaaro nit kooku gën a umu te pourtant yow boo joxee nit jaaro nit ki day ubbeeku nga ne ma dafa am secret bu ne ci jaaro te sëriñ duñ ko ci boole waale secret tey bëgg naa ñu leeral ko Sénégalais donte doo toj lépp parce que boo ko tojee sa mbokk sëriñ si piraat ko mais amal loo ci junj waaw laaj nga ma nag loo xam ne moom dama la ciy sant bu baax a baax ndax bëggoon naa am occasion ba leeral nit ñi jàmbat yi ñuy jàmbat ci affaire u jaaro ñu ñu xam lan moo ko sabab ndax jaaro nit ñi ñi ngi koy liggéey dangay gis ku takk ab jaaro ne la man jaaro dama ko takk gën a tëju li koy waral mooy lii moo ci dul ànd ñu xool ko bu baax a baax a baax a baax lii parfum la mais lii ab yax la yax bi nag mooy secret parfum bii uh-huh. ñi ñuy jox jaaro ñépp amul kenn kuñ ko ci mas a jox wala kuñ ko ci mas a jox rek uh-huh. génnal ci internet bi nga ne mas nañ maa jox jaaro jox ma jox ma parfum bii nga wane nii kenn mësu jël jox ko kenn man maay seule personne bi ko mas a génne nekk ab sëriñ di ko présenter askan wi. kuñ mas a jox jaaro. mosuñ cee boole lii parce que lii dañ koo xamul sax ba koy joxe. jëmmi parfum bi dañ koo xamul ba koy joxe. jaaro bii la ñuy joxe. te jëmmi jaaro bii sax secret yi dafa wuute. man sama jaaro tey dégg bu ma la ko joxoon nga ubbi ko. liñ ciy njëkk a fekk diñ ci fekk kayitu dix mille francs boo xam ne dañ cee bind liñ ciy bind. jël sungufus or ak xaalis def ko ci. yaa ngi dégg. donc sama jaaro li ci nekk lépp. Mhm. amul benn jaaro bu mu yamaleel. bu mu bu mu ñii sëriñ si di defar ni déedéet. Mhm. ba pare bu buñ la joxee lii. nga takk jaaro bi saa boo xëyee. nga diw ci sa loxo diw ci sa kanam. bu ngoonee nga def ko mais damay wax lu leer nag di alerte dégg. Mhm. ku koy doog a am. man nga koo def ñaari yoon ci bis bi nga raay ci sa kanam. mais soo demee ay fan yu néew da nga koy arrêté parce que bayre bi dafa ëpp doole. bayra bi dafa am doole lool lool lool lool mi ngi gaaw loolu nag ci ki nga xam ne dafay jënd ak jaay wala nga nekk ci wàllum euh, artist wala nga nekk politicien wala nga nekk koo xam ne nga nekk ci benn liggéey bëgg nit ñi gën la faa jox bopp hmm. maanaam boo amee jaaru bi takk lii rek jeex na lii nag boo ko xasee takk di utiliser lii uh-huh. doo dem di wuti nit ñi mais nit ñi ñoo lay wut si am na góor ñoo xam ne bu ma leen ko liggéeyalee sax daanaka dootuñ demati ci benn jigéen naan dama bëgg waaye jigéen ñi ñoo leen di déclarer nga xam ne kon jaaro bi euh, lii mooy secret ñu bëri daawuñ ko joxe ndax xamuñ ko. man nag sëñ Modou du joxe dara di ko dagg. man damay joxe lépp mu mat sëkk nit ki jëfandikoo ko man cee gis résultat. kon nga xam ne daal jaaro bi moom lépp mënuñ koo toog fii di ko wax. ok euh, dama gis euh, ne ay passeport tamit mu ngi ci kër gi. passeport yi. ku ne xam na sénégalais tukki rek moom la bëgg tax ñe dañuy jaar ci gaal gi ñenn ñi sax di dem Nicaragua ba ñu bañ leen di tëj ci prison yi nga ne ma kaay ma yor sa passeport am lu ma ci def ambassade boo fëgg ñu ubbil la secret kayit bëgg naa nga ñëw ci ndax am na lu la ci yàlla may. waaw passeport moom damay wax ne euh, amul kenn ku ma koy jox wutal ma pusa bu bees tàq bu kenn musta bind. Ah, ah. ma jël ko def la may def ci benn ci papier yi nekk ci passeport bi. jox la ko nga joxe ko ñu rejeté ko amul Amérique amul Canada amul France amul Espagne foo ko mën a joxe kenn mënu ko rejeté. te kum neex tamit boo ñëwee bul ma fay dara. waaw ma liggéeyal la ko nga dem bañ accepté la nga doog a ñëw fay ma. loolu amul kenn kuñ ko mën a defal ci sa passeport. Mm. nga dem nit am. am daraja ju toll ne xool ko naan la yow mayuma la loolu munta nekk waaye tamit du këyit wàllum këyit mooy ki bëgg a tukki kese am na ko xam mu ngi ci biir réew mi. maanaam bëgg liggéey ci benn entreprise ñu koy wutloo ay këyit mu war koo déposé kooku day soxla bu ko yób bu ko yóbboo. ñu accepté ko pour mu mën a liggéey. Mm-hmm. waaye ki nga xam ne dafa nekk ba réew ma. mais dafa bëgg nationalité. Mm-hmm. wala mu bëgg ay këyit pour di mën a dem di ñëw. kooku tamit kum ci man di doon bu buñ ci déggantee. dees na la ci ñaanal wax la sarax yi ngay génn boo ko defee incha allahu taala danañ la woo ne la ñëwal sa kayit yi génn na wala danañ la woo ne la jour tel ñëwal nga def entretien wala dara parce que nag kayit dafa doon loo xam ne du caagi ne da koy dugal feeg ñetti fan ñu ne la am kayit yi génn na. kayit procédure la. waaye nag nit ki di nga ko ñaanal mu waroon a toog at mu jékki-jékki ñaari weer wara weer ñu woo ko ne ko ñëwal sa kayit yi kat euh, waxtu sangam dina dina génn wala ñu woo la nga def deuxième étape troisième étape. Mm-hmm. pour wan la ne kat kayit yi moom incha allahu taala jaar na fi mu war a di nga ci jot. loolu nag mu doon loo xam ne ay secret yu yéeme la yoo xam ne ay mag la daanaka nag da ngay dégg nag nit di ko di ko wax waaye euh, bokkul ak man sama sama cadre ñaan ci cadre kayit waaye wàllum kayit daal kum soxlaal incha allah taala boo ñëwee dees na la ci jàppale bu baax a baax. bëgg tamit ci nit ñi faral di euh, feebar ñii dañ leen liggéey ñii seen yaram la ñu yàq tooke ko euh, ndax am nay xeet gàllaaj yoo xam kaaraange la goo xamante ni ku ko def ci yaramam rek mboolem lu mu ci fekkoon ci musiba ak balaa daf koy dindi. waaw dégg man boo ñëwee ci man liggéey nekk ci yow. Mhm. wala nga doon koo xam ne loo dugg dañ lay liggéey. Mhm. dama lay jox loo xam ne boo ko sangoo. day déstabiliser waaye non seulement maanaam day doon loo xam ne. Mhm. maanaam ku jugati di la liggéey boo tëddee guddi dañ koy gént ñu wan la ko ba mu leer naññ. man liggéeyal naa ay nit dara loo xam ne biñ ko jëfandikoo. dañuy xëy suba dem attaque nit. ne ko dama laa gént nga dem ci sëriñ diw mu jox la nangam lam la jox fii ak fii nga ko def xam a lan moo ko waral. maanaam man secret bi ma lay jox. Ah. soo ko xasee def ba pare. man mii di sëñ moodu mhm. bu nit ñëwee ci man di la di ma liggéeyloo. yow boo tëddee guddi. Mhm. lay wan nit ki ñëwoon ci man. turam santam bu dee dama koy jox dara sax dinañ la wan liggéey ba fa mu ko def. loolu nag looy sangoo kese la. Mhm. boo ko xasee def moom lépp lu mu fekk ci yow day dañ waaye kenn mënatu laa liggéey. ba mu agsi ci yow te ku la jéem a liggéey boo tëddee guddi ñu wan la ko nga xam ne boo xëyee suba mën nga dem mm. wax ko ko te du ko weddi nga xam ne kon cadre liggéey moom ay déstabilisé gi moom macha allah am nañ ci doy waar a doy waar ay ci numéro yooyu affiché mooy numéro téléphone borom baax sëñ Modou borom baax dëkk ci Touba waaye actuellement jamono ji mu ngi fii ci euh, Ndakaaru di borom xam-xam bu yàlla may euh, sëriñ bi nit ñi nga xamante ni dañu faral di euh, lekk lu bon ci seen biir ñu dégg ne am na xeet gàllaaj yoom yaa ngi koy liggéey day dindi mboolem lu mu fekkoon ci biiru doomu aadama ñu bëri ñu ngi wéyaale yenn feebar te pourtant nekkul ci biti ci biir la nekk. waaw loolu nag ku man di doon. ak fu ñu la ko mën a joxe ndax lekk gu bon nag bëri na ci jamono ji ñoo xam ne nooba leen ko yóbbee. am na ci ñoo xam ne nag maanaam du noob waaye nit moo lay pexeel def ko ci lekk jox la nga lekk ko mu indi la jafe-jafe wala lekk goo xam ne noobuñ la ci waaye dafa am tooke nga jëfandikoo ko far am ci jële ci biir buy metti loolu nag boo ñëwee dama naan la da ngay fajaru ñëw te booy ñëw doo lekk dara ci saase ngay wàccu ci sama kanam lépp te la nga lekkoon maanaam da nga koy wàccu nii mu génn nga gis ko du ma la wax demal sa kër de. maanaam ci sensé laa lay jox li ma lay jox. nga boole kook soow wala meew nga jëfandikoo ko wàcc ko ci sensé mu génn. bu fekkee wàcc woo ko ci sensé mu génn. Uh-huh. da dem toilette mu génn. dina am xet guy xeeñ goo xam ne ba nga juddoo ba toll ni nga toll mosoo dem toilette xet gu mel noonu génn bu boobaa rek xamal ne lekk ga wàcc woo ko waaye dafa génn. waaye nag lu ci ëpp nag bu ma ko joxee nit moom ci sensé la koy wàcc sama kanam. Mhm. Euh, ñu ñëw ci saraxu année bi 2023 mhm. mi ngi tàggatoo mais yàlla na ko 2024 dàq ñu ne at mu nekk da ngay jug waajal at ma fagaru ba doo ci tëdd feebar doo ca at ma dana neex ci yow. am na ñoo xamante ni bu année di waaj a si dañuy wër ci àll bi di wër ci sëriñ di sangu ñi am fula boole ci tamit di wër di seetlu di xool seen rawaan nan la tolloo ak année bi ah, ñi ngi jëm ci 2024. waaw di la wax ne 2024 bi ñuy dugg. incha allahu taala at mu neex lay doon. lépp lu ci nit doon sàkku tamit lu ci bëree bari dina jàppandi. ñi ci bëgg a génn réew mi lu mel ne tukkee xeet yooyu yëpp tamit dana jàppandi maanaam at lay doon moo xam ne daal ñu ci bëree bëri dinañ ci gis seen bopp. yu bëree bëri nag yu amoon ci at mii nga xam ne mooy jeex. ci bëree bëree bëree bëri fa lay jaare dootoo ko gisati. maanaam buñ ci duggee daal coow yu bëree bëree bari ak wàllum justice. maanaam yu bëree bëri moom day fay ba ñëpp jaaxle dootoo ko ci déggati benn yoon. wàllum politique tamit maanaam ñu ci bare bëri danañ ci fayee maanaam ci ay nit ñoo xam ne ay politiciens lañ danañ ci jaare dootoo leen déggati waaye nag dina am ñoo xam ne seen biddiw dina ci féq waaye nag du doon ñii nga xam ne moom la nit ñi miin ba nga xam ne boo waxee politique ñoom la ñuy tudd day doon ñoo xam ne kenn mësu leen a xam ci politique ñoo xam ne ci la ñuy juddu seen biddiw féq ci waaye nag sarax bi tamit ñu bëri dañuy jàpp ne bu ñu na saraxu année. Mhm. xëy na dañ naan président moo ko war a génne wala ñu nekk ci nguur gi déedéet déedéet. Mhm. maanaam nit ku nekk mën nga ko defal sa bopp. waaye tamit maire de famille bu ne mën nga ko defal sa njaboot waaye père de famille bu mën nga ko defal sa njaboot. Mhm. mu doon loo xam ne dana leen aar ubbi leen seen bunti xewal sarax boobu nag dinaa ko wax fii tey ndax man dama naan lépp luy jariñ. du ma ko iñaane kenn ndax xam gi ma koy xam xam naa ko ba pare mhm. waaye dama koy bëgg tamit mu law ba ci doomu aadama yépp mhm. léegi sarax boobu nag li ci gën bu fekkee nit ki da koy def da ngay fexe dajee sa njaboot ku ci nekk na pesé wu ba xam poids am nu mu toll mhm. bu ko defee mu génne ko dugub dugubu basi wala dugubu suuna bu ko defee tamit mu génne ko ceeb génne ko mboq waaye beneen bi tamit mu ne bu jëlee poids am ba pare bu poids bu xamee nu mu toll day fexe waa wut lu mel ne kii gerte. gerte gi nag du ko génne ci poids bi. du ko du ko génne comme diisaayu pois bi nu mu toll. déedéet. bu génnee gerte gi. da koy jël fanaanoo ko su ko fanaanoo bu xëyee suba. mu daati wut ndox mu sedd ndox mi nag bu nekkee ci ay butéel moo gën. su ko defee léegi mu jël ndox mi euh, daat koy sotti ci gerte gi ba gerte gi tooy bu ko defee mu weer ko ba mu wow mu jël gerte googu saraxe ko beneen bi tamit suñ mënee génne lu mel ne kilo tàndarma. akilo suukar. ak kilo mbiskit. Mhm. Mhm. ak kilo kii euh, guro. ak kilo euh, mburu mhm. buñ ko mënee génn tamit saraxe ko ku nekk mën ko defal sa bopp ku nekk tamit mën nga ko defal sa njaboot waaye incha allahu taala boo ko defee di nga gis ne maanaam musibe yu baree bari yàlla dina la ci musal waaye tamit di nga gis ne sa njaboot ak yow mi leen ko defal yàlla dina ubbi sa buntu wërsëg bu baax a baax te sa njaboot tamit dina doon ñoo xam ne gàllankoor yu baree bari yàlla dina leen musal ñi jëm ci combat boo xamante ni mën naa ne euh, dimanche la muy euh, rëg-rëg ak ki nga xamante ni mooy bombardier yi dañu gis làmb des fois mbër yu mag yi bu ñu demee ba toll ci yenn niveau yi seen gàllaaj dafa mel ne day dellu ginnaaw mais ku mel ne Bombardier yi dañoo seetlu ne heure bu ñu jàppee ba ne combat bi da ciy daanu wala ñu boole ko xale buy dem mu këpp yalwaanu kooku jàppoo ne Bombardier mënta këpp yalwaanu Reug Reug waaw Reug Reug ak euh, Bombardier yi làmb jooju làmb ju ju neex lay doon incha allahu taala waaye nag damay faral di leeral ne euh, nit ñi nañ xam ne euh, gàllaaj du luy ñëw ci stade bi lii ñëw ci stade bi mooy li gën a tuuti te lii ñëw ci stade bi muslaay kese la nekkul luy daan mbër nit ñi faaw ñu xam ne yenn saa yi ñu gis euh, mbër mu ñëw ci làmb ji teg ñetti butéel wala cummikaay gi ñu gis mu oyof lool ñu ne ah sa de moom sa da koy daan da koo jekku fekk loolu du ci dara ndax lii daan sëriñ bi mën na koo yore toog fa mu toog di ko liggéey wala mu doon loo xam ne ña ngi koy defee ca kër mbër ma waaye lii ñëw ci biir moom muslaay la pour bëti nit ñi nga xam ne boo simmeekoo ñuy jàkkaarloog sa yaram waaye loolu taxul muy daan boo mërjee nag am na xeetu gàllaaj yoo xam ne amoon na ko xaw ba léegi nag ndax mi ngi koy fonk ndax dafa am gàllaaj yoo xam ne même boo amul komba sax dafa doon loo xam ne dañ koy dañ koy nàndal mbër yu bëree bëri nag dinañuy faral di am gàllaaj waaye dañ koy fàttee nàndal mooy waral bu ñu amee komba da leen di daanu daanu goo xam ne da leen di bett comme lu mel ne combat bii jàll mooy amaa balde ak euh, Modou Lo Ama Balde amoon na amoon na xeetu gàllaaj googu. waaye nandalu ko moo waral daanoom gi sax moom daf koo bett. léegi nag boo Bombardier am na am na gàllaaj googu. waaye nag dama koy wax tamit ne ko. Euh, ki muy bëreel te mooy rëg rëg moom it dafa am gàllaaj goo xam ne gàllaaj gu doy waar a doy waar la. goo moom Reug Reug kon damay wax ne bu ma dee alerte daal damay bëgg ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk bàyyi xel sa moroom xam ne am na gàlla joo xam ne mën na laa daan waaye tamit di fàttali nit ñi nga xam ne ñooy faral di seetaani tamit ñuy faral di wut ay muslaay balaa ñuy dem ci stade di seetaani làmboog yu mel noonu ndax làmb dafa bëri gàllaa ju fay génn yoo xam ne jigéen mën na ko tee am doom jigéen mën na la tee sëy ba ci góor sax mën na am lu mu lay yàqal lu baree bari loo xam ne daal kon ñiy dem di seetaan yi tamit ñuy fexe di wut muslaay balaa ñuy dem ci stade yi tamit di ci am solo lool. di wax tamit ne euh, euh, di ñaanal ñoom ñaan ñëpp nag képp ku ci mën a daan tamit euh, na ndam li jik ndax man dama doon nit koo xam ne. dama bëri ay mbëri làmb yu ma jaxasool moo tax du ma bëgg tamit di di di wax yenn yi ndax. koo xam ne da ngaa njaboote moom faaw ngay waa kañ doo mën a far faaw rek ngay ngay ngay wax sa xalaat rek te mu doon loo xam ne dafay concerné ñoom ñaan ñëpp daal maa ngi leen di ñaanal ku ci am ndam rek yàlla na la jég. ñu la nga tàggatoo ak askan wi lay ci MPROD TV. waaw di sant ci ñëw gi nga ñëw fekk si ñu euh, séq ak ñun waxtaan te waxtaan wi yëpp rek ngir askan wi euh, man cee gis seen bopp. ndax xam-xam moom dañuy wax ne ginnaaw bu la ko yàlla joxee tamit nit kiy ñëw di la tàllal micro. ngay wax mu koy jàllale ci askan wi tamit kooku tamit jàmbaar la lool ba tax na li la ci sant di la ci encouragé bu baax a baax di la ñaanal suñ boroom taxaw la bu baax a baax di wax ne nag lépp luñ fi wax daal euh, ñi ngi ko teg ci rek tegtal yoo xam ne euh, xam nañ ko waaye tamit ñi ngi ko teg tamit ci yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen. Mm-hmm. ci lépp rek ci loxol suñ borom lañ ko delloo waaye tamit boole ci tamit ak ragal yàlla gu wér goo xam ne lépp luñ ciy seq ak rek. dañ koy teg fu leer naññi balaa ñuy jël sab xaalis waaye di ñaan tamit ginaaw bu ñu la joxee suñu ñaan ba pare tamit yàlla defal la ci euh, xéewal defal la ci lu kawe sa njort li taxoon nga ñëw ci ñun suñ borom sottil ko di wax ne in uridu ila al islaha mastataatum wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa alaykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Euh, sëñ Modou Borom Baax tey moom la ñu seet si woon doon séq ak moom waxtaan ngir leeral li war xew ci euh, dunduk doomu aadama nit ki war nay xool mbiram ngir xam mooy kan nit ki war nay xool mbiram ngir xam yokkuteem waaye nit ki mën nay xool mbiram ngir fàggu li nga xamante ni moom mooy njariñu ëllëgam donte gàllankoor ba nga cee ñëw mu def sarax ba ngir loolee bañ a tàbbi ci kawam moom nag jëmm ju yàlla may la te boroom xam-xam la kilifa la ñaankatu yàlla la te mbokk yi doomi daara la gis ngeen ni mu ko leeralee gëstu na xam bu bokkut ak la jàngoon mooy xam mu sungu ak reen waaye xam mu fas jëlee ko ci ay xeet yoo xamante ni bokkut ak xeet wu mu bokk kon yaakaar naa li tamit bokk na ci xam-xam la ca mag ña waxoon ne da nga dox dem fu nekk ngir jëlee fa lu ne mbokki kii borom xam-xam la te jëmu ju yàlla may la ay ci numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot sëñ Modou borom baax mbokki doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci darajey Muhammad Rasulullah